seen sëriñ Saaliw Mbakke sunu yaakaari ko di ñaan sunu borom yàlla yokk ay leeram defal nu ngërëmam ngërëmu biir biti biti faw ndax moom ba faw ba nga xam ne ni moom la nu bàyyee ci liggéey sëñ Tuuba wala itam yàlla dimbali nu bañ sax ci faw wala yéen nag nag ñoo ngi fi ñoo ngi fi sant yàlla bu baax a baax Serigne si Saliou Mbacké mu yàgg fi te wér nga xam ne moom la yéene liggéey ak Serigne Saliou liggéey ak Serigne Touba maamam lu kawe lu kawe ak ak bëggam waaw saa lu kawe njortam ci Saliou Mbacké te it euh, Serigne Abdoulaye mi nga xam ne ko daan ànd ak moom ci liggéey bi fas yéene itam lépp lu muy muy muy muy muy muy muy liggéey sëñ Tuubaa bi nga xam ne moom la nekk foofu su ne jàppale yal na ko ci yàlla dimbali moom itam waaw mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak moom ci liggéey bi itam yal na leen yàlla daal dimbali faaw luñ ci def ñu gën ko man ndax liggéey bi sëriñ bee ko fi bàyyi woon mu doon loo xam ne sëriñ sëriñ Seex koy taxaw taxaw bi itam dara la des eh, ci muy taw toppatoo daal ci ci dund dund bi ak li nga xam ne moom moom moom moo wax ci sellal gi loolee nag la nga lam mu ngi see def la man lépp ànd ko teel bi fii ci ci ci Ndakaaru loolee nag sëriñ bi gis na ko te yëg na ko te itam sant sant na sant bu wér te it ñu ñu ñu xam ne ñu nga xam ne ni taalibe ak taalibe moom waay am lu waay la lu ku fi raw rek moom moo la tax a raw ku amuñu tam lu fi waay am ci lu lu rëy rëy rek ci ci liggéey suñu tubaab bàyyi kon nag ñoo ngi sant yàlla sant fette gi ñu ko fette ni ak jëf li nga xam ne ni ñu ngi koy jëf ci mbirum dund bi ak ak cere jeeg ak ak wàllu wàllu jeeg mooy jeeg yëpp rek yàlla na yàlla barkeel lépp te defal leen ci ndam te defal leen ci tawfeex jëriñ si réew ak si bitim réew naan santal ma ñi si bitim réew tam sëriñ bi daan am naan liggéey sëriñ Tuubaa ma xamoon ni xii lay mujj ak man lépp lu ma ci defoon nga xeeb sëriñ Tuubaa daan incha allah daal ma xamoon ne liggéey sëriñ Tuubaa ma xamoon ne xii lay mujj ak man waaw lu ma ci defoon nga xeeb waaw tax na ba tax na ba képp koo xam ne si yaa ngi ci waaw yaa ngi ci liggéey sëñ Tuubaa du ci yërëm kenn liggéey sëñ Tuubaa ne ku ci nekk du ci yërëm kenn ndax xam day xam na mu ciy jël noonu moo tax moo tax liggéey sëñ Tuubaa du joxe nangu rek ma teg ko nga xam day xam na mu teg ko waaye nangu rek ci liggéey sëñ Tuubaa ma teg ko nga ah. xam ne lépp lu mu nangu teg ko lum nangu rek teg ko ko dagg naan sëñ bi daan ko loolu dafa am benn man Abdoulaye Alawi ñu wax nan wala wala ara wala wala ara muqarriban li rabbi tabit xidmati nabi mahibbi wala ara yaqrahu xaadimun xadab xadima xëysa tishinna min nadam ne gisuma lenn lu mën a jegeel yàlla sunu borom toog lu toog di liggéey seen lu gën a kawe liggéey seen tubaab ko gën a mën mm-hmm. musuma gis itam maanaam kenn ku liggéey ku liggéey seen di fëgg bañam ngi rëcc <laughs> fëgg bañam ngi rëcc loolu ci liggéey bi mi mi liggéey jumaa ji liggéey jumaa ji قم نارا ولا أرى يقرع قادم خدم قديم خير خلق سنا من ندم وكل كل جيل سنتوا أي كل جيل كل جيل سنتوا كل جيل كل جيل سنتوا ku liggéeyal ka liggéeyal Serigne Touba. ku liggéeyal ku liggéeyal Serigne Touba. Ah. muy fëgg bëjëm ngir rëccu. Oh. muy fëgg bëjëm bëjëm ngir rëccu. ngir rëccu maanaam di regretter li ma ci waaw. Ah, kon xam nga ni liggéeyal Serigne Touba. ki liggéeyal Serigne Touba la wax de. wa maanaam waxul Serigne Touba de ki ki liggéeyal ki liggéeyal Serigne Touba. Oh. <laughs> yow mi liggéeyal Serigne Touba ku la liggéeyal. waaw. <laughs> هذا قصده واو man de wóor ma ne lii ngeen nekk day bu fekkee am na néew mu amul daal bu fekkee am na jaam yàlla boo kawe man xaw ma ko saare li ngeen nekk li ngeen nekk daara ji ngeen nekk daara ji ngeen nekk léegi waaw bu fekkee am na jaam yàlla boo kawe man xaw ma ko man saare y a n yàlla def leen ci k a h